kenn ku nekk na nga dem fa nga nekk kenn nañ ko ministre Omar jël ay moyens ay communes ñu ko ak sous-préfecture fële wër Bambilor wër euh, wër dem mais préfet ci euh, service ak partenaires euh, au sens large du terme partenaire au développement yi département mais ñun avons ca jógee man délégué président de la République fi ministre bu notamment ministre bi yor cadre de vie ak hygiène ak mais man dama war a woote samay nit ñi nga xam ne ay kàngam lañ yor baat yor kaddu yor yi moyen pour ne leen ah man de bëgguma des ginnaaw loolu lañ doon dajale tey di sant maire yi ak population yi nga xam ne am na lu ñu teg depuis boobu ak même bien avant loolu mais te ñu ngi koy continuer fi ñu toll nii man ne leen ku ci nekk na nga téye ci loolu mais buñ ci téye aussi euh, ki na ne am na euh, euh, ab plan bu ñuy lal wéru ko ci plan bi préfet di di di di di teg pour mu euh, refo dugg ci soufam pour que ñu déroulé ñun aussi mu wor ñu ne weer wu nekk préfet néna na dina tan ben commune dem fa mais man aussi bu ko défé dina maire yi fay gëna metti des na ko xam parce que li am solo moy comportement ñi changer waxu ñu sétal tay mais fexé bu mu nek lu sax dak léegi maire bu ci nekk xam nga sa problème fan la nek man dinaa réunir benn réunion boo xam ne man ak takk der yi la ak ñu wax ñu aussi ñoom lan lañ ci xalaat pour ñu lal plan plan boobu pour ñu ne ñun fii la ñuy jëm weer wu nekk bu préfet jàllee bu dugul suñu arrondissement man dinaa tànn benn commune dem fa ñu jël aussi buñ ko defee ba pare am na ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay usine ak ay entreprise yoo xam ne ñi ngi fii ñu am doole ak boromi barke yu fi nekk dégg ngeen li ñu wax ci biir salle bi ñoom nee nañ ñom buñu ñu dindi bu ñu satalee bu ba paré maire bu len wo ñom dina ñëw pour defar wa brigade euh d'hygiène ñu ngi fi mais Eaux foré wax nañ né ñom dañ jappalé ñooñu pour pépinière yi pour ñu delluwaat arrondissement bi nam meloon parce que fii zone de Diagne la non day am solution parce que dégg nga euh proviseur lycée Jaxaay ma jël ko pour exemple mom néna lycée dañ da wax né lycée Mbëbës mais yeen ñi bu ngeen paré dem la ngeen def reportage foofu soppeeku na ba indi na man ma wut ay partenaires yoo xam ni man dama doon liggéey ak ñoom arrondissement Fimela ñu nekk ci lu ñuy wax un banc un arbre maanaam ci keppaaru garab gu nekk dinañ fa teg benn banc te xam nga lan lañ koy defee dañ koy defee ak récupération ay pneu canette yi ñuy sànni ci mbedd mi man aaday bi ma yor nii moom laa daan demee Fatick ak proviseur lycée Fimela proviseur lycée Loul Sessène ñuy ramasser ay pneu di ko indi ma leen koy sotti mais loolu bu ma demee ba gis professeur soxna si euh, proviseur lycée bi mom mu ngi ci djégo yoy mais man ma man leen ka leen ngeen ñu def préfet kayit parce que waruma def lo xam li ci arrondissement mais loolu bu jaxay changé ba mu sa lan sensibilisation wax ak yi environnement bi xalé yi sax initiative di ko te bi ci réunion bi né proviseur lycée yi fi yi

ne am na lu leen di jàppale pour ñu teg ay ay ay UCG wax na ko sànq ne poubelle yi ñu doon jël ñu ko doon teg ci mbedd ñu koy jël dañuy dellusiwaat loolu bu dellusee mais day leer ne école bi def li mu war a def imam yi def li ñu war a def curé yi def li ñu war a def yéen presse bi ngeen def li ngeen war a def parce que ma leen di rafet ci loolu mais rafetlu seen teewaay parce que am ngeen ci rôle fondamental boo xam ne presse war na ko jouer mais bu boobaa am na au moins foo xam ne fii mën nañ wax ni fii nii kat. il y a comme lycée Plan Jaxaay biñ ñu doon wax lycée Mbëbës je n'ai rien contre les gens de Mbëbës mais ci trim ba mu tilimoon tey ni nek na lycée bo xamni bi référence la ci set ak rafetaay bu boba aussi deuk bu nek mën nañ ko tuddu commune bu nek mën nañ ko tuddu arrondissement bi mën nañ tambalé suñu arrondissement bi mo moo set te loolu lañ bëgg lolu méttit la ci am ak mbettel parce que deug deug man euh kuy xam xamné jeunesse bi man bari na lu bari luñ fi luñ fi luñ fi xex ba violence amatul ci arrondissement bi du moins wàññeeku na fi mais bu président ODCAV waxé feulé né mom directive lay jox jox ko président zone mo ma woo président gisuma président zone mais damay jaxlé et c'est légitime ma jaxlé am mbetteel parce que yaakaaru moo ne man du wuy sama sama invitation léegi nak nan la ko mën a duñu du ay ennemi du ay non, ay partenaires lañ dam leen di bari wuñu ci beneen réunion ñu set nan lañ leen di impliqué ak conseil Communautaire de la jeunesse mais c'est vraiment dommage que on le déplore et c'est la deuxième fois dans la semaine que ma koy wax donc il faut nous analyser froidement le problème là pour xam lan la jéem Pour trouver ça.